salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax dañu bëggoon a ñëw joxe suñu jàngat ci tolluwaayu réew mi ak euh, manifestation yi nga xamee ne moo ngi fi am depuis ñetti fan li nga xamee ne andi na ko réew mi ci ay dégâts même bu dee état bi moo ngi def ay effort ngir di nëbb loolu bañ ko wan sénégalais yi bokk na ci effort yi nga xam ne état bi def na ko ngir loolu bañ a fees moo di ne données mobile bu internet bi nga xamee ne dagg na ko depuis ñaari fan wala sax ñett ci tey jii nga xamee ne loola lam ca gën a jublu moo di ne nit ñi buñ amee connexion gox boo xamee ne am na xew-xew bu fa am rek nit ki day am possibilité wu mën ko filmer daal di koy jàllale ci réseaux sociaux yi ngir loolu bañ a am nag moo tax état bi obligé dagg li nga xam ne moom mooy connexion bi muy connexion wu téléphone bi ñun loolu moo ci sunu gis-gis ci mbirum dagg googu loolu lañ jàpp ne moom moo ko waral euh, beneen bi it tey jii état bi daal di xëyaat dagg li nga xam ne mooy TikTok bi te it bam koy daggit comme lii ma wax nii daanaka ca communiqué ba loolu la wax ne moo tax mu dagg ko moo di ne TikTok bi dañ fay jàllale ay xibaar yoo xamante si ne dafay gën a xam bu taal beeg yu ni mel daal ci gàttal boo ko doon gàttal mën ngaa wax ne loolu mooy communiqué bi nga xamee ne euh, moom la ministre bi wax ne loolu moo tax ñu dagg li nga xam ne mooy TikTok bi nga xam ne kon jamono yii fii ci Sénégal TikTok doxatu fi internet mobile tam doxatu fi ludul rek.

boo jëlee lu ci mel ne internet bi rek ndaxam xam ne ñaar ñii rek nga mën a jëlagun pour l'instant mais bari na ay secteur mais jëlal ñaar yi rek internet bi ak TikTok bi boo jëlee internet bi muy données mobiles yi ñaari fan wala ñetti fan yiñ koy dagg ñaata milliards la ci Sénégal de perte ndaxte nit ñiy jënd connexion di ko utiliser bu Orange ne ci journée tey bi jaay naa ci cinq millions cinq millions yooyu

yi état war a def yépp ci xaalis boobu nga xamante si ne moom lay gagné ci orange wala ci Free wala ci faneen ca la koy defee ndaxte xaalis boobu ci Sénégal yi lay jóge xam nga état wu Sénégal xaalis bi muy am di ci faj ay soxlaam yenn yi ci ay taxes la koy jële bone taxe nag mooy Sénégal yi nga xamante si ne ñoo ngi nekk ci biir réew mi di di jaay ak jëndante te connexion da koy jënd ñi lay jaay foofa dafa am lu ci état di gaye bu jëndante jaayante amatul état bi day perte foofa boo ñëwee ci wàllum TikTok bi aussi TikTok ak luñ mën a wax ne dana ko yàq dëgg la waaye ñaata nit tey ñoo doon jariñoo ci TikTok ñaata nit ñooy jaay ci TikTok ñaata nit ñooy liggéey ci TikTok jamono yi kon boo arrêté TikTok tamit ñooñu seen liggéey da nga koy arrêté te comme ni ma ko waxee état wu Sénégal saa soo arrêté benn nit boo xamante ne daf doon liggéey nga téye liggéeyam état dafay perte ca foofa ndaxte benn nit boobu saa su daan dem jëndi dara état wu Sénégal day am lu ñu koy jomb même bu dee cent franc la sax état wu Sénégal bu doon ñetti dërëm lay jël ci cent franc wala ñaari dërëm du treize ko ci jël kon kooka bu amatul possibilité wu dem jëndi wala dem jaayi. état wu Sénégal daf ci perte boo ko jëlee noonu ba ci banque yi nga xamee ne am na ci ay gox yoo xam ne yenn banques yi dañuy ne ñoom dañuy tëj banque yeneen banques yi wala sax mën nga ne banques yi ci ëpp wax ne liñ doon liggéey ci journée bi dañ koy wàññi léegi quatorze heures la ñuy wàcc journée wu ngoon boobu nga xamee ne ñii dem banque xam nañ ne banque mën nga faa dugg dix heures génn fa dix-sept wala dix-huit heures ndax xataay kon banque bu wàññee temps bi mu doon liggéey dana def effet tamit ci ñi nga xam ne dañ doon ñëw di dugal seen xaalis wala ñi nga xam ne si ne dañ doon ñëw di génne xaalis ngir mën a dem defi laneen ndaxte ku ne banque ne commerçant aussi bu fekkee commerçant bi xaalis bi mu waroon a jot tey du ko mën a jot tey mais suba wala gannaaw suba la koy mën a jot loolo aussi dafay am gàllankoor ci marchandise bi te marchandise bi bu amee gàllankoor bu yàggee commerçant bi dafay obligé daal di yokk li nga xamee ne mooy marchandise bi muy jaay ndaxte pertement ba muy am ca banque ba ci ñaari fan ak ñetti fan yooyu mu koy tardeel daf koy bëgg a rattrapé moom itam ndaxte loola daf ciy am loo xam si daf koy perte ci marchandise am nga jël ko noonu jël ko noonu ba ci transport transport bi moom it boo xoolee biir Ndakaaru na mu waroon a doxee doxeetu ko surtout que sax nga xool tamit euh, ñi nga xamante ne ñooy jaay essence ñoom itam waxoon ñu ne dañuy def grève ñetti fa te grève ñetti fan boobu la ko waral aussi manifestation yi bokk na ci ndaxte nee nañ seen station yi ñuy taal ak yu mel moo tax ñoom it ñu bëgg a def grève ñetti fa buñ defee grève ñetti fan jaay ki yor oto bëggoon a dem moom itam dootul mën a dem ki amoon soxlaa bëggoon koo faji te ñooñu buñ jaayul aussi état bi day perte ndaxte dañoo waroon di jaay bu ñu xëyee jaay un million sax état bi man caa gagné cent mille wala dara mais buñ jaayul cent mille ya état bi waroon a gagné ci un million ba da koy perte kon lii xew ci réew mii nii ñi koy xeebantal ak di ko soobantal yàlla xam ne ne guuta gu rëy rëy rëy ci réewum Sénégal te guuta gi duñ ko dundagul léegi nii feegi quelque semaine peut-être bu dakkul danañ dugg ci euh, jafe-jafe yoo xamante si ne kenn du xam nu mu toll ndaxte boo moytuwul lépp luñ doon jënd téeméer danañ obligé di ko jënd ñaar kon mbir yi war nañ ko xoolaat te jéem ko man teel a arrêté noo xamee ne ñëpp danañ ci gis seen bopp réew mi gis ci boppam état bi gis ci boppam ñeneen ñi gis ci seen bopp moo gën que di xuus ci loo xamee ne kenn du ci gañ état au Sénégal du ci gañ euh, opposition bi du ci gañ sénégalais yi duñ ci gañ léegi nag nañ xool loo xamee ni moo gën ci réew mi wax dëgg yàlla te lii ñun en tout cas laataay ñu ciy dugg xamoon nañu ne buñ ci duggee lu mel ni dana am ndax dana yàgg wala du yàgg kay la ñuy wax mais ñëpp xamoon nañ ne lu mel ni dana am léegi su yàggee baaxut ci réew mi pertement lay doon ci réew